day ok léegi dama dégg nga ne déplacement El Malick dem Dakar dem dikk. c'est man moom. waaw man damaa jàpp ne war na faa dem nag ndax moom lañ dénk secteur te liñ ko dénk moo am problème yitte la pour mu sol dàllam dem fa xam lan moo xew doog woote waxtaan parce que booy woote waxtaan da ngay xam ci lan ngay woote waxtaan avant may ñëw fii. dama waxtaan ak benn chauffeur bus dem dikk ne ko damaa dégg léeg lii mu ma loolu nga dégg loolu moo am ay bus yoo xam ne ni yu bees ñu toj leen te ña leen toj ci biir dépp ba lañ ne te toj boo xam ne ni toju. yàq ñoom ñu war bu ñu ko tegee ci yoon. xoolal toj eh. daay ñu dañ leen war a dàq. est que dàq nañ leen. non non àggaguñ foofu xëy na te xam nga ne. xam nga ñu toj ko. non xam nga ko. xamuma ko. <laughs> moo tax may la El Malick le ministre mënoon na bañ a déplacé wu démb toog xaar parce que xamul tax xaaral ma télé yi euh. télé yi ñi dañuy dem jëli information ah, bi les gens bu ñu leen dégloo ñu ah, communiquer ci seen mm-hmm. li leen métti mm-hmm. ay wuy dañoo fal diw dañoo fal diw affaire de gis nga affaire de personne la personne yooyu ah, sénégalais ñoo ko moom waaw pas parce que dañoo fal Adama Fall Adama Fall neexu ma que damay toj bis le ministre il vient mm-hmm. ñu génnee le directeur il parle nit dafa dem retraite ki topp ci ginnaaw moom laa jël fal ko sa peut se comprendre. Mm-hmm. mais nañu woo directeur bi ñu xool ñu toog ak moom toog ak mais pourquoi ñuy toj ay bus on doit aller foot dehors. voilà pourquoi ñuy toj ay bus. voilà léegi nag. teguñu ko fenn. non non moo tax ma moo tax ma xam nga loolu c'est des mooy dàq affaire yooyu noonu mais kii war a dàq jël euh, le dernier mot mooy ki dénk secteur bi. mën na bañ a dem sa fa coow la amee. mën na bañ dem je suis désolé. waaw xam nga lu xam nga lu tax mën na bañ a dem. waaw léegi day yónni est-ce que. il y a des il a un daaf il a d' yoo xam ne. waaw gis nga gis nga ñun sénégalais ñoo xam la mooy suñu problème loolu c' est un problème culturel ñun. pour ñun bu ñu amee problème tànk kilifa gi jógul ñëw. tey jii xam lañ dem ba ci kanam. waaw am mu amee màggal am. cérémonie religieuse affaire yooyu bu ministre intérieur demul. Mhm. famille bu nekk bu la neexee nga toog fi nga toog na yëguñu yëguñu ma loolu mooy sénégalais mais gis nga affaire yooyu il faut mu dëñ il faut mu dëñ problème dafa am Dakar dem dikk lu ministre El Malick kilifa la nga toog fi mu toog mu yónnee. waaw léegi te gis nga affaire jaratul yónnee sax léegi téléphone bi euh, télé yi. Hmm. lépp lañ lay woon. d' accord c' est à dire xam nga secteur boobu màggal gàmmu ak secteur bi hmm. man jàpp naa ne bokkul. benn la kilifa bi man waxuma waxuma waxuma secteur bi de. waxuma secteur bi de. dama ne taxawaayu kilifa bi. waaw gis nga ñun. jamono yi jamonoy Abdou Diouf xam nga ñoo fekk ñu nekk ay xale. Eh. mais tey danga ministre yi boo leen gisaan da nga leen di xoole bët yu rëy parce que da nga leen daan jàpp c' était des hommes d' état. dañ doon yoo ne dañoo raax. ah neexu ñoo jot. Mhm. neexu ñoo gis. Mhm. te dugg ñu ci ay falaa falaa. dëgg la. gis nga il faut qu'on arrête c'est pas que c'est pas parce que da ngay da ngay da def bërit bi dal na fi président Macky Sall dal na fi Ablaye Wade am na yoo xam ne tey jii ci ci ci ci ci ci ci reñu Bassirou Diomaye Faye mm. dafa war a jeex parce que ñoom dañoo fekkee Ablaye Wade fekkee Abdou Diouf fekkee fekkee président Macky Sall li leen dal ñu war ñu defaat les mêmes erreurs ok et je suis désolé peut-être les mêmes erreurs. ok mais on ne le souhaite pas dañoo bëgg ñu avancer. Euh, c'est bien dit de dire euh, peut dama ne man damaa rafetlu demam. c'est c'est ton droit. ok xam nga bu subaa nag bu ngeen grévé taximaan yi bu ñu grévé suba. waaw <laughs> ñu jógaat demaat. non man moom grève bu ma def rek dafa am ay argument yu leer nañu ma def ko. tegu ko fenn seen grève. waaw waaw c'est-à-dire xam na lan la ñuy créé. yaa solo. war gaynde bi. <laughs> ay war gaynde waru daw. ay jakarta non non maa ngi ñëw xam nga xam nga voilà. ku ma ci bëmax nag ma jël yaa ma ci bëmax nag. xam nga sànq yaa ngi doon wax ni ñun dañ doon wax ni non heure bii waruñu daw dañ ñoo war a bàyyi ñu daw heure yi nee naa la lépp luñ bañ am na lu tax bañuñu man mi nee naa non daw guddi bi benn instant am na fu mu baaxee de mais am na foo xam ne baaxu fa. am na chauffeur yoo xam ne nii boo leen waxee kañ dem guddi ñu ne demuma c'est parce que mënuñu dawal guddi mais am na ci ñoo xam ne ni mën nañ dawal guddi. am na ñoom ne rek la ñuy dawal. yaa ngi may dégg bu baax Sénégal du Dakar am na ñoo xam ne ñu nga dëkk Daara Jolof horaire moo leen arrangé parce que am na lu ñu war a mën a lijjanti Dakaaru ñibbiwaat Daara Jolof ci jour bi. horaire ban heure lay jóg. waaw kay horaire day départ deux heures du matin. moo dul yoon. ça dépend. xam nga fu ma dul waxee non bu la du yoon parce que boo amoon sa particulier am sa soxla boo war a doxi Kaolack ñu wax la ko muy urgence ab dëj doona xaaral mu bàyyi ba suba ku ñu war a denc 10 heures non dañuy waxtaan non man bu ma wax dama daan ci dawalkat laay wax par mesure de sécurité waaw yow miy dawal waaw xam nga sécurité bi nga mën a am ci bëccëg bi amuloo ko ci guddi ci ça dépend ci chauffeur bi déglu rek déglu rek non gis nga déglu dañuy waxtaan gis nga dafa